wàllu politique ci la ñuy daal di gën a suux ak euh, campagne électorale bi ngir jëm ci euh, deuxième tour bi euh, ñu jàpp ko dimanche ji candidat yi ku ne di yëngoo sa boor diggante maître Abdoulaye Wade ak sal Sall maître Abdoulaye Wade moomu fu mu toll ak lees mën a jàpp ci xibaar ci moom Ibrahima kan moo ñu koy toppal Ibrahima Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi ah, fu ngeen fete ak lan lañ fa mën a am ci information. waaw jamono yi may wax ak yow ñu ngi ba léegi yëmbal yëmbal nag euh, maître Abdoulaye Wade di candidat waa Fal 2012 mu ngi amal caravanam si ñu ngi jublu jëm côté Thiaroye waaye laataa ñuy yëg si si ngoone ñu xamal leen rek ne caravane bi tey ji la tàmbali si benn waxtu bi mu jotee Mbour lañu ñu déparé nag foofu jot na fa amal benn doxantu bu ndaw doce jot a daje tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi foofee nag maître Abdoulaye Wade di waxtaan ak ñoom wax leen ne leen nañ ko jàppale te dig na leen nag loo xam ne mu ngi toll ci cinq cent camions frigorifiques ndaxte seen napp yeeg yu demee noonu ñuy bañ di yàqule wax na leen tamit ne financement li jëm ci camions yooyu mu ngi toll ci neuf milliards nee na financement bi taxaw na ba pare ind la xaalis ba war a jugee nee na fi mu toll ni deux cent cinquante yi commandé nañ ko kon ci ay fan yu néew mareyeurs yi nee na dinañ jot ci deux cent cinquante camions yooyu waaye tey jii nag li gën a fës Ngoné Ngom ci xabaar yi mooy euh, doxantu bi biñ yëgsee ba fi nga xam ne nag moom mooy Kër masaar ak euh, Kër Massar ak Tiwaawan Pël maître Abdoulaye Wade euh, taxaw na wax ak askan bi lim leen njëkk a wax ci waa waa waa Kër masaar xamal na leen ne bi muy jaar ci yoon bi di ñëw dafa am lu ko metti ndax yoon ba bon gi mu bon loolee nag nee na dina ci taxaw parce que tamit euh, ci biir oto bi fi mu nekk sax la xamal askan bi foofu ne woo na ki nga xam ne moom mooy Karim Wade di ministre des infrastructures nee na xamal na ko yoon tali bi ni mu mel te incha allah bu faluwaatee rek priorité lañ koy def feneen tamit euh, di ci waawan pël foofee nag maître Abdoulaye Wade euh, dafa gis ne communauté alpulaar bi fa dajee bëri na ci loolu nag la sukkandikoo pour euh, wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa maatam ak waa Podor foofee nag maître Abdoulaye Wade daf leen xamal ne moom Euh, podoor ak Matam bëri na ay projet yoo xamante ne def na ko foofu ndaxte askan bi dañ ko ko laajoon waaye dafa seetlu ne nee na ci premier tour bi askan bi foofu daal voté luñ ko woon Macky Sall la ñu votel ba taxaw na nag fi mu toll nii niñ ko mën a waxee ci tubaab rek genre défiance lay doon nee na nag euh, bii ci deuxième tour bi bu fekkee ne voté luñ ko moom euh, dootul fa defati dara nee na nag mënul comprendre ñu wax ko ne ko nañ leen defal ay yenn projet moom mu ciy def kéemtalaayu kàttanam ñu ko fay bàyyi di dem di voté li Macky Sall kon daal xamal la daal deuxième tour bi moom du nangu lu ni mel su bu ñu bëggee daal euh, mu def continuer ay projet yi nga xam ne moom la fa commencé ak yeneen yoo xam ne tamit am na mbébét def ko fa ne nañ nañ ko votel bu fekkee bëgg nañ loolu kon ngoone fi mu toll nii ñu ngi continuer suñu doxantu ñu ngi waaj dugg ci ay caaro yeeg yu demee noonu lu ci am daal euh, dinañ leen ko gën a fësal ci xibaaru l'incontournable